tribune euh, félicitations oui. félicitations MD euh, la tribune félicitations alors Sen TV et Zik FM toujours en tête des <coughs> sondages première place dans le landerneau médiatique sénégalais sacrifice sens de l'engagement lourd investissement recrutement qualitatif, professionnalisme pour entrer dans le cœur des téléspectateurs. voilà M dina leen woon journal bi léegi mu ngoog voilà. am nañ ko fii M dina leen ko joxaat <coughs> félicitations applaudissez-vous. félicitations mais il dort c'est le mois Ramadan. il faut il faut se féliciter. Euh, Sen TV Zik FM. je pense que Zik FM yàgg na nekk première. Ah, ah oui. depuis 2011 ah je crois à la radio. Mm-hmm. Sen TV première. Euh, ah. yal na yàlla barkeel. allahumma amiin <laughs> yal na yàlla yokk. amiin yal na yàlla yokk. amiin yal na yàlla yokk. amiin waay. Euh, c'est maintenant que les choses sérieuses. commencent. commencent c'est maintenant que que ça démarre. Euh, félicitations au PDG à Bougane il faut se réjouir de ce qu'on a. effectivement félicitations tout toute l'équipe aux technicien mm. techniciens à tout le monde. Seul maintenant le travail, le mais démarre. Mm. li ñi li fi jot a jaar yëpp xéewal la boo xam ni moo tax lii nekk léegi nag tàmbali la beneen étape yal na yàlla barkeel ko. mu ànd ak xéwal te nag mu jik aussi ñi fi nekk. borom kër geeg ñi fi nekk ñëpp. allahumma ah, lépp luy jafe-jafe luy sooke obstacle yu yu ñagas ñagas yëpp yàlla pousse ko mu dem. Mm. neex neex ñëw. Mm. jig ñu euh, di am une pensée quand même à l'endroit de ñi fi nekkoon. te newtuñ fi moo xam liggéeyatuñ fii moo xam ñu ngi ci beneen bërëb moo xam dañ fay jóge ku mel ni Ndiaye Dos ak sunu papa bi mm-hmm. Ndiaye Loo ak ñeneen ñoo xam ne ñun dañ doon xool de loin euh, ñuy ay am di jàmm yàlla ñuy ñaan mu xaraleen si aljana yi gën a kawe donc cet ensemble là une famille euh, de compatriotes euh, ñëpp à féliciter n'est-ce pas <laughs> alors par rapport à li nga xam ni am na muy démb moo tax nu sol la xonk lii nga xam ni dañoo ko sol mm-hmm. démb sol nañ ko ca sitting ba tey solaat nañ ko fii pour wax rek li nga xam ne metti na ay journaliste Binta Bawo ñi mel ni moom ak ña si des mu ngi nii nii la gars yi taxawoon démb soxna Fall ak Fatima ah, Diop démb ah, sax demoon nañ ah, foofu ci am na ñu fa def ay revendications. Mhm. Euh, am na ñoo xam ni ci wàllu information c'était visible euh, nekkoon nañu fii ci kër gi d'accorduñu ak ku mel ni le PDG Bougane ils l'ont signifié ça rentre dans le les normes de li ñoo wax le droit mmh. à la revendication. Tout à fait. Après, Bougane pourra se défendre, lui mm-hmm. aussi, en tant qu'employeur, n'est-ce pas mm-hmm. Mm-hmm. Donc, aduna bi noonu la tëddee ku ci nekk selon position yi nga amee le groupe euh, des médias. voilà ni euh, kii employeur la kii employé la y a des rapports yoo xam ni parfois qui sont bien parfois qui sont pas bien mais ku ci nekk selon position ba nga am na nga fexe ba am dëgg. loolu moo am solo n'est-ce pas bi si des moo la nag la tax gars yi organiser le sitting boobu foofu ca ministère de la communication hélas euh, le ministre euh, n'est pas n'a pas été au rendez-vous devant ses locaux génnu la mmh, oui euh, on va dire ainsi disons que c'est le directeur de la communication qui a reçu les gars et voilà échangé mais li gën a am solo aussi xasma yàlla mooy revendication yi dafa dem dans le sens que cette presse là est en danger ban danger la presse sénégalaise nekk danger on dira euh, danger peut-être pas violence physique même bu ci amee mais le gros danger il est économique c'est-à-dire que la précarité bi am ci presse sénégalaise cette précarité là que euh, ku xaw nekk ci presse nous on est à notre vingt-deuxième année de quatre-vingt-dix-huit à maintenant mais on se rend compte que saa euh, yi amuñu ay millions yoruñu dara sutura si yàlla léegi nag lan moo tax 22 ans yooyu bu fekkoon Europe laa ko def wala Amérique maa ngi ci beneen niveau. Hmm. fii ci Sénégal mënu ma ne ci beneen niveau. mais parce que il faut que ñu comprendre que cette presse la du rek problème mu presse hier je le disais au gars que du rek problème mu journaliste yi problème mu environnement la. Hmm. ban environnement environnement Sénégal. Hmm. ban Sénégal xasma yàlla. naam. yaa xasma. ban Sénégal la ñu nekk Sénégal boo xam ni. boo tuddee yow fu mu ne nii yow boo tegee sa loxo ndingleer hmm. nga ne coow boo tegee sa loxo dugaar nga ne coow ma Mansour Diop mu ngi wax ci suba problème mu ndox mi àll bi amuñu ndox hmm. ak ak waate maanaam foo mënti laal waa environnement bu ni mel mais presse pour mu dox ci day compliqué et cette précarité la le patron de presse les patrons de presse fii au Sénégal ay jinne lañu. ça hmm. va tu un journal tu paies l'impression tu paies toutes les charges mm-hmm. de l'encre au à la, à la diffusion finale les salaires et tout ce que tu veux nga pare journal bi cent francs lay jar Sénégal rek moo desee loolu journal cent francs mais Sénégal loolu la nit ñi am a à Abidjan feneen les gens vendent à deux cent trois cent jëm kaw donc fii Sénégal qu'est-ce qui se passe mooy que environnement bi moo puéril environnement bi moo salte moo dem ba lépp bu dafa métti nan nga mën a comprendre ku nekk ci àll bi nga koy laaj ndox di ko fayee ko un million seen eau moo xam nag ban façon ndox la soxla bu dee ay tool la ak leneen ak la sa des mais imaginez comment nit mën a développer wu ci dëkk boo xam ni yow li war a gën a yomb muy meew dafa cher luxe lañ ko def. li war a gën a yomb. Hmm. muy jën. nga xam ne say maam dañuy dem jëli ko ñëw nga may la ko. jën dañu ko daan maye voilà fële ca ndeppe të ngej dañu daan maye ba ci yoof ak fa ca des waaw léegi yow nga loolu yëpp nga tourné ci contexte boobu ne way je veux faire avancer la chose après tubaab jox la concept émergence nga taxaw fàtt nit ñi ak émergence te yow mu leer na ne yow bougé woo buntu buntu buntu buntu avenir um donc aujourd'hui cette presse la elle fait face à la même situation bi kii par tous les Sénégalais Parfait. donc xasma mm -hmm. journal bi xam ngi toog fii mhm. cent franc donc lay jar asma am na koo xam ne boo ko joxee cent franc ci Sénégal. te te bari mu kontaan. da sant ñaanal la yàlla. waaw kay waaw ci environnement boobu nag presse li ñu waroon def en 2012 président Macky Sall dafa def loo xam ne lu intéressant duñ ko fàtte de malheureusement fa angle ba fa affaire ba jëm après moo soof dafa ñëw ne baal naa leen taxi mais boo baalee taxi après dafay am suivi. accompagnement man bu dee da may may tey te suba ma war a wuti waat jaru ko donc permettre ma ma am possibilité wu suba ma gagné. Mm. les charges fiscale dans ce pays dafa metti fépp. étrangers yi rek ñoo ciy génn. ñu def trois points de suspension la presse souffre elle souffre économiquement il faut que état bi là où on parle d'aide à la presse on a parlé de fonds d'appui avec le code de la presse bu bees bi on parle de fonds d'appui à venir yéex na nag yéex na.